yow keroog bi ñuy investir euh, Amadou Ba maison euh, maison du parti yéen ñi juddoo ci PS. Mhm. màggee ci PS. Mhm. surtout Adja Aram Dieng. Mhm. sa waajur bu jigéen. maa ngi koy ñaanal. daan naa ko gis ba ñu jàppee Barthélemy Diaz. daan naa ko gis ci combat bi. mu doonoon ko jàmbaari aussi. donc yow PS doonu loo xam te ne da nga ko choisir da nga cee judd. mais boo gisee ñu investir Amadou Ba biir maison du parti <laughs> naan Amadou Ba mooy suñu parti. mooy suñu candidat li fi Senghor defoon Abdou Diouf def ko Tanor nangam nangam léegi yow en tant que socialiste lan ngay sentir au fond de toi li may sentir nag mooy xol bu naqadi parce que defe naa ne maison du parti ba ñu dalee investir ba tey mosuñu fa investir keneen koo xamante ne nii ku bokkul ci njabootu euh, parti socialist defe naa ne ñoom tey bu ñu toogee bay jël keneen naan kii mooy sunu candidat defe naa ne war nañu xoolaat seen bopp ndax foofu investiroon fa Khalifa Ababacar Sall le président moo gënoon rafet que ñu fay investir keneen ndax maison du parti socialiste pour socialiste yi la waaw. neexul ci xol. Mhm. neexul ci xol parce que dañu day mel ni gis naa fa seen naa fa sama xarit bi sax moom kii woon. Ah, dafa métti dafa métti ci xol parce maison du parti moom ñëpp xam nañ ne. xalifa daal waxoon na grand yow dem ko xalifa meeting grand yow bu mujj boobu dama ko fàtte mukk ba mu ne PS du parti al du parti yóbbaale ma. Mm-hmm. Mm-hmm. wallaay meeting am boobu duma ko fàtte. Mm-hmm. donc bu ma gisee Ndiaye naan woyi xalifa dafa war a ñëw ci ñun bàyyi leen di yàqal xalifa xalifa <laughs> ñëwul ci yéen parce xalifa dafa am. dafa am yoonam. kon ñoom dañuy yàqal xalifa quoi non dañ koy yàqal imaginez. depuis un certain temps seetlu woo ñu koy diwee beurre bi di ko raay comme si ci ñoom la bokk pour. voilà loolu aussi ay stratégie la politique mais loolu arrangé wul xalifa xalifa dafa bëgg rupture ci li ma yaakaar dafa bëgg rupture bu dee du loolu ah bien sûr mais xalifa ci rupture la mës a dox wax ne ci loolu la mës a nekk xalifa ligne am mosu ko wàcc ci benn ligne la nekk mosul changé d'accord socialiste pur et dur du changé